qui veulent un tout petit peu parler de leur message. On vous laisse deux minutes à faire passer votre message. Waouh, waouh. Ça, c'est la responsable. Un homme responsable. Un homme responsable. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi tey sama xol a jeex tey sama xol a jeex dama rus en tant que sénégalais tey maa ngi woon soirée Youssou Ndour ca kaw VIP laa jënd toog ca kaw jàkkaarloog sunu papa Youssou Ndour mais Youssou Ndour a mën a way Youssou Ndour il mérite de respect barki alxuraanu karim li ma indi tey du mbalax sax da doon waxtaan di indi art africain di jàngal tubaab yi sunu culture mais Youssou Ndour doon it toj na toj na salba grand théâtre bi toj na ko da koo xar satle Youssou Ndour yaa mën a way Youssou Ndour yaa am dégg-dégg tey laa jommi tubaab yi fees fa dell ay tubaab di bal Youssou Ndour ay boy yi di saboté di ñëw di fa yëg naan libéré soo kenn déggu leen bu ne libéré ko ñu ne Youssou Ndour Youssou Ndour tubaab yëpp ànd naan Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour ñu tekkiwul dara yéen da ngeen mën a yàqal papa Youssou Ndour yéen Youssou Ndour da leen a tàng yéen fexe leen seen bàyyi mel na comme Youssou Ndour Youssou Ndour talu leen te ngeen bàyyi Sonko mu tëdd penam ci dignement moom santu leen lii Youssou Ndour di kilifa mérite du respect drapeau Sénégal Youssou Ndour li mu liggéey ak Youssou Ndour li mu def pour Sénégal il mérite respect méritewul sax toog suñuy nawle surtout tubaab yi di suñuy nawle ngeen di yuuxu ak di yàq programme bi Youssou Ndour aar la indi spectacle complet fecc collaboration aar bi mosuma ko gis ñoom Pape saa Sonko fecc fa fecc yoo xam ne aar boo xam ne ba ma juddoo ba tey man aadama bos day néegi mosuma ko teg bët kon Youssou Ndour il mérite de respect Youssou Ndour nag mënu leen ci moom dara minutes la leen mayoon sax moom dafa gore waru leen ko woon a may de may leen deux minutes ci baaxam daan ne pour ngeen jàllale seen message ngeen ne fa naan libéré eh, ñu naan Youssou Ndour yaa fi ne Youssou Ndour Youssou Ndour toj na saal bi papa yàlla nga gudd fan yàlla na la yàlla may wér Youssou Ndour doo nit kenn mënul ci yow dara maa fekke mënu leen ci Youssou Ndour dara saal ba doolu la fa woon dara bu leen profité di dugali vidéo ñëpp nga fa woon VIP laa laal papa Youssou kenn du moom maa ngi ñëw live li ci des incha allah